suñ bi moom koy liggéey liggéeyal ko ci alxuraan xam nga ne boobu liggéey moom nangu na moom loolu rek doonoon na bëgg moom nag waxuma la nag ngeen di ci teerloo waa këram ñooy ci ko tuddee ba agsi ci moom loolu nañ ci bànneex lool ko a ànd ak ay ñaan ak lu ne soobee man dama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 ñaanal sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko fi son borom gën a yàggal te gën doole ak wéram waaye di ñaanal mbooleem njabootuk sëriñ Touba gépp di ñaanal nag boroom ëtt bi ñu toog di sëriñ daam moom Cheikh Ibrahim moom sëriñ Touba xaadimu rasul di ab taalibeem waaye di jëwriñam ji nga xam ne moo ko fi nekkal ci tànn gu am solo gi nga xam ne sëriñ maam Baara. moom sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdoul Aziz moom Cheikh Mouhamadou Lamine Baara mi ngi koy amal at mu jot ci daaray alxuraan yi nga xam ne moom la taxawal ci ndigalul sëriñ Touba di ko doxal sëriñ Touba Cheikh Salih Mbacké ba agsi ci jamonoy sëriñ Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha at mu jot tari boobu mu tuddee ko kenn ci njabootu sëriñ tubaa gi ren jii nag mu tànn Cheikh Ibrahim mi nga xam ne ku ne xam na ne. liggéeyal na sëriñ tubaa liggéey bu rëy ci topp jeexitali sëriñ tubaa yi xëye woon ci këram gi ci mbàkke baar yi ci mbàkke bawal topp tànki sëriñ tubaay yi ba dem gabon ñibbisiwaat ci weeru kor yi gane àdduna it ci weeru safar ci ni ko sëriñ bi nettale ren jii nag tari boobu war a doon le 12 août ji nga xam ne moom la sëriñ tubaa xaadim rasool déparé woon mbàkke baar yi bis boobu nag war a daje ak ñetti fan ci weeru safar sëriñ maam Baara nag ñëw fii fekk si sëriñ daam mi nga xamante ni bii sëriñam way wayjuram lañ tudde bis bi mu ànd ak jëwriñam Cheikh Mahamadul Fadal waaye kàddu yi nga xam ne bég ci ak bànneexoo ko tax na mu jox sëriñ Cheikh Abdoulahi moom it mu fas yéene yëkkati ay kàddu ci ndigalu sëriñ bi su ko dee bu ñu fi jógee nag dem ci Cheikh Mahamadul Fadal mi nga xam ne mooy jëwriñam kon sëriñ Cheikh Abdou bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi yëkkati sama kàddu ci ndigalul sëriñ Daam Abdourahman mi ngi xam ne mooy xalifa Cheikh Ibrahim ibn Cheikh al Xadim kàddu yi jëm ci sëtam bi sëñ maam Baara Mbàkke ak mbooloo mi mu àndal yëpp sëriñ bi nee na mi ngi leen di nuyu nuyoo ba gën a kawe. nee na mi ngi leen di sant bu baax itam di leen gërëm ci yitte ji nga xam ne dox si ngeen ko fi te muy yitte joo xam ne xëy na day soog a egsi ci moom tey waaye yitte ju yàgg la ju yoo xam ne naka jekk mi ngi ci biir yitte jooju yitte ji nag mooy toolu sëriñ Tuubaa bi nga xam ne mooy alxuraan ak xam-xam te ngeen nekk ci di ci yëngu ba ràññee ko ci lool ba tey ji yàlla dogal ngeen am ci ay darajaat yu kawe kawe te mooy ak yokkute am ci bu baax a baax yokkute gu ràññeeku itam ni nga ko waxee daara ji biñ ko sancee ak léegi lu mat ñeenti téeméeri nit ak juróom-ñeent mokkale nañ fa alxuraan yamut ci loolu waaye mu am programme ku jógeeti ci daara ji mën faa jàngi xam-xam ba li fa mënta ñàkk amee ci lijaasa nga man ko faa amee man faa amee itam formation professionnelle loolu yëpp nag dara da cee génnul sëriñ Touba ndax sëñ bi euh, yitteem lépp dara génn ci woon defar doomu aadama yi teg leen ci yoonu siraatal mustaqim xamal leen yàlla waaye moom ci boppam moo wax ne ab toolam mooy alquran liñ wax nag ne euh, euh, mbir maa ngi soog a mel ni day soog a yegsi ci moom tey jii donte yëfama woon naka jekk mooy bis bii ngeen di waajal war koo def la 12 août muy bisub tari alxuraan am leneen lu ci dolleeku te mooy sos yeneen daara ju mag yoo xam ne nii day sofu ci daara ji ngir yàkkali liggéey bi war koo defee fële ci euh, Mbàkke Baari ci keseñ Sëñ Sidi Maxtaar gële ci sowu bi euh, loolu mooy li ci yees euh, fekk itam jamono bu ne bu ngeen tollaan ci def tarib alxuraan bi ngeen di ko jagleel kenn ci njabootu sëriñ bi ngir yàqalee ko liggéey bi ren ji mu tombeek Cheikh Ibrahim ibnu Xaadimu Rasul loolu de sëñ bi nee na rafetlu na ko lool naka jekk ba nga ko commencé ci ka mag ci njabootu sëñ bi waaye lii moom rawatina ci ndax dafa ñëw ci ay tànki boppam kon loolu mi ngi ciy sant bu baax di ci rafet njort bu baax itam eh, bi nga ko ko waxee lim la njëkk a wax mooy loolu day mm, rafet na jortu ci ne liggéey bu yàlla nangu la ndax weer wi ñu koy war a def muy weeru safar ci la Cheikh Ibrahim gane woon àdduna te day mel ni bis bii ngeen ko jàpp soreewul ak bis boobee nga xam ne moom la tombeeloon kon loolu ak cant la ci di luñ ciy rafet a njort. Euh, ñaareel ba mooy mm, Cheikh Ibrahim mii nga xam ne moom ngeen jagleel bis bi tey dafa am histoire ak alxuraan ndax nee na dafa mas a seeti maam Thierno Birahim euh, ñuy waxtaan ba mu xamal ko ne mbaa fonk nga alxuraan mu ne ko waaw fonk naa ko li man lépp de maa ngi ko ciy def mu ne ko waaw ku ko ñu ko war a fonk ngeen ñëpp ko war a fonk waaye yéen njabootu sëñ bi yéen ci raw ndax yéen alxuraan moo tax ngeen am ne ko sëriñ bi dafa mas a toll ci xaal yi jàppul woon ne sax dana am ay ay dendandoo ay waa kër euh, loola lenn la ci histoire nee na ci alxuraan la jaar ginnaaw sëriñ bi kaamil bi mu ko binduloo woon mu bind ko ba pare moom maam Thierno fas ci loola sëñ bi nangu koo am nee na ba mu jébbalee sëriñ bi kaamil ba sëñ bi xamal ko ne ko li nga ci façon yàlla suñ borom nangul na la ko waaye taxutoon nag mu nangoo am ay takk ndeer nee na ginnaaw mu bindalaat ko ab kaamil fas ca kaamil ba loola sëriñ bi am ay takkandeer ñu ñuy tudd di ko tudd ni ay doom nee na ba ma bindee kaamil ba ba jébbal ko sëriñ bi fasaat ci loolu sëriñ bi xamal ko ne kon fa pas boobu nangu na nee na loolu yi ne ko loolu yi nag euh, bu fekkee ci barkeb alxuraan ngeen amee yéen kon war ngeen a fonk alxuraan lii nag bu ñëwee ko waat ci loolu Cheikh Ibrahima mi yàlla mayoon ko cër bu rëy ci alxuraan ndax histoire saxal na ni bi muy dal jàng ak bi muy bind kaamil di ko yot sëriñ bi njaareem lépp ci ñetti at la loola de woon lu raar ci jamono yooy mu yomboon ci moom lool itam ndax bi sëriñ bi sëñ Abdourahman indee sëñ Ibrahima njaareem di ko jébbal sëriñ bi jébbalaal ko ab kaamilam da koo seereel ay cant daa seereel sëriñ bi ay cant ci Cheikh Ibrahim ndax nu mu ko yombale la ko sëriñ bi santoon ci moom te muy am njàngum alxuraanam xamal ko ne jàngal naa ko ba tey jii moo bind lii te mosuma ko merloo mosuma merloo yombalal na ma ko lool kon maa ngi koy sant loolaa waral sëriñ bi boolewaat leen wóllëre dénkaat ko ko ba loolu mooy illay Cheikh Ibrahim ki mu njëkk a gis ci ak njabootam di sëñ Abdourahman mi mu tudde ko sëñ Daam Abdourahman Lo loolu lépp nag kon jataay bii firnde la ca loola ba tax na sëriñ bi daal nee na jël na yëf yi muy muy muy yëfi boppam mi ngi la ciy sant di la ci gërëm di la ci ñaanal waaye fas la ci yéene ànd ak yow nag muy daara ji ndax daara ji yëfama ab liggéeyam alxuraan la lu ngeen ci mas a def mel na ni moom ngeen ko defal lii ngeen di def nii itam ginnaaw bu mu ko rafetloo fas na ci yéene ànd ak yéen ba jeex ci tàkk ci loolu itam lay xamale ne képp koo xam ne wëllëreem nga wala ngay ak njabootam wala ngay ab soppeem wala ngay ab taalibeem ak sax képp ku doon dara ci Serigne Touba rek moo xam taalibe nga ak foo ko doonee moo xam wëllëre nga moo xam soppe nga mu xamal la bis bi bisub sëñ Touba la bi liggéeyub sëriñ bi la mi ngi ci nekk te di la ca woo nga ñëw jàpp ci ak noo ci mën a jàppee ngir lépp lu mën a tax mu yéwén rek ñu defee ko ni ko sëriñ bi bëgg ndax liggéeyub sëñ Touba bu mu gërëm la ndax liggéey ci alxuraan moom liggéeyal ci sëñ Touba ku ko def rek na xam ne yaa ngi ci biir liggéeyub sëñ Touba ñaari sart rek la am euh, benn bi mooy na yéen a ja rafet te wiir ñaareel bi mooy na ko sellal waaye bu ci yii dajee rek na xam ne sëñ Touba nangu na boobu liggéey te gëm na ne moom mii di si Mouhamadou Lamine Bara looloo ngi ci moom mooy pas-pas bu sell ak ak yéene ju wér kon nag mi ngi xamal ñëpp ne daal lii yëfama dugg na ci bu baax duggal ci mbooleem ku ma am di ci woo ñëpp di ñaan yàlla ñu yegg ci ci jàmm te ñu amee ci lu kawe njort ci barkeb sëñ Tuubaa te sëñ bi nangu ko jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah